asalaamaaleykum ami cheikh internet bu Dakar net dal leen ak jàmm seen rendez-vous bi jot na muy top actu ngeen koy amee fii nga xamante ni mooy ci Dakar net ngeen ci feggoog seen serviteur Davida ni ngeen ko gisee ci réew mi ñu nekk muy réewum Sénégal fan yépp nag tàng na loolu waaye dañuy baax loolu ñu xool lépp loo xamante ni rek moom mooy actualité yi na mu nekkee ñu faram-fàcceel leen ko mbirum Ousmane sonk ak Adji yëngaloon nag jamono ji fan yépp ñu bari doon wax naan Sonko daa war a ji ngir moom apaisement mu jaral ko moom Sonko ginnaaw bi mu xamee ni am na li ko teewoon wuy ji muy immunité parlementaire am ñu yóbbu assemblée nationale ñu daal di koy voté daal di ko koy simmil mu def ab conférence de presse jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal na nag donte ñi ngi koy woo dina dem wuy ji waaye li gën a doy waar ci dina dem wuy ji mu am benn incident boo xamante ne da cee am loolu nag moom la ñu war a waxtaane tey ak leneen lu topp ci incident boobu ndax xëy na ci sama xel bu gàtt bu fekkoon ni loolu noonu amu fa woon tey du ñu dem ba li ñuy dund tey ji ñu koy dund kon sans plus tarder ci rési ñu dem seeti élément boobu ñëwaat mangoog mbokk yi ginnaaw bi ñu jaajëfale waa Russie gis ngeen defe naa ni éléments yi ni mu fa mel bari fa fees fa dell moo xam waa GIGN la ak ñu mu ci mën a doon ba ci sax gendarme yi ñu nga fa woon waaye dafa am lu ñu jàngat rek xool ko mooy bi nga xamante ni Ousmane Sonko ma nga ci këram ne du wuyu ñu bari jàpp ne daa war a wuyu ji mu woyee ndigal nag fa seen wuyu ji bi muy ñëw nag ñu daal di koy coincé kar ko fa nga xamante ni mooy ca rond point li nga xamante ni nag mu la mbir a demee d'après ci li nga xamante ni noonu lañu ko waxee te ñu ñu am ci lu leer wax dëgg yàlla ndax mooy suñu rôle dem xool fay yi daal di koy tas comme ni ñu ko war tasee moom Sonko bi mu demee di wuy ji gis nañ waa GIGN dañu ko daal di wër ñu jëlaat ko nag li nga xamante ni la ko doon toppee muy mbiru viol ak menace ci soxna soosu di aji Sarr mujj bi nag. ñu toppee ko li nga xamante ni mooy trouble à l'ordre public loolu lañu ko toppee jamono ji ma jàpp ci rek ak jàngat gi ma am mooy waa GIGN du ñu def loo xamante ni amuñu ci ndigal te ndigal gi ka leen ko digal ñëpp xam nañ ko muy le préfet ma jàpp ni préfet buy naan ordre xawma lan ak lan ak désordre loolu loolu lépp lu mu ci di doon préfet loolu yow yaa ko créé ndax bu fekkoon ni Ousmane Sonko génn na këram. choisir yoon bi muy jël dem yoonam dina yegg fa nga xamante ni fa lañ ko convoqué woon mais dañoo toog à notre grande surprise ñu gis ni kat Sonko daal di nañu koy bloqué te ñu ko bloqué ñëpp di wax naan trouble à l'ordre la te ñoom ñoo ko créé ndax gis ngeen ki nga xamante ni moom mooy la préfet ma ngay wax di xataraayu ma ngay wax di yuuxu ma ngay wax di menacé te loolu xaaruñu ko ci ku mel ni préfé ndax loo xamante ni. moo waroon a nekk taxawaayam mooy di apaiser lépp loo xamante ni mooy situation mais sax dem nañ ba mu gis ko ci ay menaces yooyu mu daal di ñu koy teg ñun taskatu xibaar yi ndax mi ngi naan dégager faites dégager même les journalistes faites dégager tout le monde même suñu fekkee ni dañuy insister dal leen ci seen kaw xaaruñu ko woon ci yow préfet mu doon loo xamante ni mënoon na ñàkk. su fekkoon ni bàyyi nga Ousmane Sonko mu jël yoonam waaye déet da ngeen naan yéen yéen a koy jël utal ko benn xamante ni mooy itinéraire am fii ngay jaar moom Sonko choisir foofu ngeen bu ko jaarloo te dégg nañ <clears throat> ni fi ngeen ko bëggoon a jaarloo dafa amoon ay nervi yu fa newoon armée de gourdon ak lu mu ci mënta doon xaw ma gordien xaw ma gourdon yooyu yëpp ñu toog di xaar Sonko pour bu ñëwoon ñu ñu gaañ ko su fekkoon ni ñi ngeen jël muy waa GIGN ak waa gendarmerie yëpp ngeen jëloon. ñu encadré Sonko depuis këram defe naa ni du ñu xalaat ni ko itinéraire bi ngay jaar wala nga naan itinéraire bii ngay jaar wala fee ngay jaar je pense que loolu duñu fa yegg mais le préfet à personne tey buñ demee ba nga xamante ni lii yëpp am na fi jaxasoo gi yëpp am na fi préfet bi yow la bu ñu doon situer responsabilité yi dañu naan yow la en personne yow la ndax yaa ko indi li tax nag ma ne la yaa ko indi désordre bi yëpp leneen li nga xamante ni gis nañ ko muy bii nga xamante ni opposition bi ak société civile bi dañu ne dañuy def seen marche pacifique nga ne du fi amee lu koy firndeel ba mu jaral xale yi yuuxu xuloo xeex ŋaayoo ba indi fi problème bu rëy bu rëy rëy muy ay image yu ñaaw image yoo xamante ni xanaa ma bàyyi waak régi rek ñu indi ma image yooyu ñu door ci commenter Macky Sall ñu kon mbokk yi gis ngeen image yooyu mu nekk image bu daw yaram mu nekk ay image yoo xamante ni xamewuñu ko Sénégal mu nekk ay image yoo xamante ni ñu ci bari bi ñu toog di koy seetaan dañu man ne ñi ngi nekk Irak ñu bari sax dañuy foog ni ñi ngi nekk Birmanie ñeneen ñi ñi ngi foog ni ñi maanaam xaaruñu woon sénégalais yi te lii lépp <clears throat> lu leen ko yóbbee bokk na ci ndigal yoo xamante ni préfet moo ko jox ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi ñoom dañoo ne dañuy def seen marche pacifique opposition bi dafa ñëw ne day marche pacifique partie civile bi ñoom ñëpp ñoom dañu ko wax société civile bi léegi nag li ci gën a garaaw ci mbir mi <clears throat> mooy ay manifestants ay activistes ngay jàpp leen tëj ku ci mal ne waa Y'en a marre jàpp caat kilifa mu doon loo xamante ne xaaruñu ko du loolu mooy apaiser li nga xamante ne mooy situation bi waaye li gën a doy waar ngeen waroon ci jàng yéen ñi nga xamante ni yéenay gouverner mooy nit ñi dañoo dee. nit ñi dañoo sonn nit ñi lekkatuñu naanatuñu balaa may dee ñu naan un journaliste warut a jël position quelle position quelle position bu fekkee ni yéen yéen ñu jiite ma pare di jël ay position parce que Macky Sall daa jël position yow préfet nga jël sa position léegi nga ne ñun taskat xibaar yi du ñu jël li nga xamante ne mooy suñu position foo leen ko teg lu ñu war a wax dañ koy wax. lu ñu gis te nga xamante ni mun naa jur ay dañ koy wax mais balaa may dee ñu naan boo un journaliste doit jamais prendre une position bàyyi leen yooyu ñun préfet dinaa la wax nga comprendre benn affaire bu dee président Macky Sall moom moo gis situation bi génnul àttuwul moo fas yéene àtte comme moom position bu mu préféré mooy position silence yow nga jël position def sa réaction bu metti bu tax tey tension yi di gën di bari nit ñi di ci xamante ni ñu ngi dee policiers yi ci seen bopp ak gendarme yi ñoom ci seen bopp ña ngay dee ndax koo ci dagg loxoom mu ngi noonu ki nga xamante ni bopp ba toj na ma nga noonu lépp nag mënoon na ñàkk préfet lii mënoon na ñàkk su fekkoon ni doxal ngeen yoon préfet lii mënoon na ñàkk lii nguur mënu ko jar waaye damay wax tuuti nit ñi nga xamante ni ñoo may teewlu en tant que préfet dafa am ñaari galon di yootu nag beneen galon muy troisième galon bi tax mu doon ab gouverneur moo tax fu mu nekk nii muy xataraayu di daan sax dañuy fusiller ñi nga xamante ni ñooy journalistes yi ak képp ku taxaw seen kanam loolu ñett grade yi muy wut mu bëgg a doon garaatu loo xamante ni mooy gouverneur moo tax fu mu nekk nii lu mu gis lu mën a rey ni sax dina ko def moom la préfet muy benn xaar ñu ko woon ci yéen sénégalais yi dañoo mérito ku leen protéger mais pas di leen di teg ci yi ñuy tegu nii couvre-feu bi metti na nit ñi liggéeyatuñu loolu rek dafa metti booy torturer nit loolu rek doy na ci torture mais yemoo leen ci loolu léegi nag bu ñuy def seen marche ngeen ne doo leen fi marché li ma gën a metti dans tout dëkk bi tàng dëkk bi tàkk ñi war a informer war a informer ki nga xamante ni kenn xamul mooy kan muy Babacar Diagne Babacar Diagne ñu jël la tey def la nga nekk njiitum sénéra waaye nii la mën a demee ndax mosoo tëddee njaaxaanaay depuis Abdoulaye Wade Abdou Diouf yow mosoo tëddee njaaxaanaay ñu ci bari sax nee nañ kii moom zéro crédibilité amu ko. moo tax bi ñu la jëlee toog la li nga xamante ni mooy njiitu Sénégal ni nga mën a doxalee parce que li ngeen bëgg ñu koy teg ñun du ñu ko teg ay réalisation Macky Sall moo fi tabax lii moo fi def lii moo fi mais Abdoulaye Wade lan la tabaxul ñi nga xamante ni doomi réew mi leen te génnoon ñëw sax investir nañ yow Babacar Diagne nga ne yow léegi dangay def léegi sax farfarloo farfarloo bi mooy lan bàyyi télé yi te télé yi li nga def kay moo doy waar ñëw fekk. Sen TV nga tëj ñëw fekk Walf Fadjri nga tëj waay waaye jooy nañ Sidi Lamine Niass jëw nga Sidi Lamine Niass xam nga ni li nga def Sen TV su fa ñoom njaay dos newoon duñ la ci bàyyi waaye buggaan ngay gëm sa bopp doon ko gore am naqar moom ginnaaw bi ñu ko tëjee mu dem Walf Fadjri jooy fa la mu fa war a jooy ànd ak nag ñi nga xamante ni mooy peuple bi kon day wane ni buggaan ngay nga tëj teleem nga ñàkk ko tëj peuple bi moo ko ñor waaye waaye Sidi Lamine Niass jooy nañ ko moom mi nga xamante ni si démocratie la nekk ba dem wuy ji suñu borom Sidi Lamine Niass alal la la defalul sénégalais yi Sidi Lamine Niass alal lan la la la defalul sénégalais yi waaye Babacar Diagne war nga Sidi Lamine Niass war nga ko waaye dina la leer ni ki jël Sidi Lamine Niass muy moom borom kun fa yakun bul foog ni dala fii naan ñu ko bala fi Sidi Lamine Niass deful suñu borom la tax tey ji ñu jël ko yóbbu ko bàyyi yow mii defaloo borom bi la tax mu jël la bàyyi la fi kon yéen bu fekkee ne da ngeen yor seen yi di koy utiliser contre li nga xamante ni mooy peuple bi bay boo ngeen waaj ma ñëw nag ci ki nga xamante ni mooy Félix Antoine Diome moom je pense que xale yi dooree juddu démb sax bi ñu dégloo discours am dañ doon gàll dañ doon gàll ndax. discours bi tekkiwul dara ñu bari sax nee na daf ko waroon def ah, su forme de vocal gars yi partagé ko na ni sax ñu amul connexion yi dina ko mën a partagé parce que discours bu vide la kan mooy Félix Antoine Diome moom moo toppoon Karim Wade kan mooy Félix Antoine Diome moo toppoon xalifa Sall waaw kooku bu fekkee nii dañu ko joxaat mission ginnaaw bi nga xamante ni dañu ko promettre ne ko bu fekkee ni topp nga Khalifa Sall topp ki nga xamante ne mooy Karim Wade dañu lay jox garaatu ministre tey da doon na ko waa daj leneen liy daj dëgg gi nag mooy jàppal ñu Sonko ñu joxaat la mbëkkus mbëkkus googu lañ ko jox moo tax démb bi muy wax ñun ñu ko woon lijjantiwuñu ko kenn teewluwu ko parce que waroo woon a génn yow waroo woon a wax benn idée ngeen am benn objectif ngeen am mooy jël Sonko tëj kon nag. yéen a fi waxoon ngir yàlla naan mbir mi mbiru privé la yéen tey ngeen soppi ko mu doon public ñëpp jot ko ñëpp jot ko mu doon loo xamante ni lu ñaaw la suñu réew mii di réewu Sénégal <clears throat> Macky sàll mi nga xamante ni démb ñëpp dañ doon xaar mu def benn acte de grandeur mooy mu génn def benn discours à la nation xamal naan je suis désolé je vais Sonko defu ko. dañu xool élément bi ñëwaat. un contentieux judiciaire qui implique deux, deux citoyens, citoyens sénégalais. une jeune dame de vingt ans et un député dirigeant un parti politique. Dans le déroulement de la procédure judiciaire relative à un viol, la personne incriminée a manifesté d'une part son refus public et ostentatoire à répondre devant la justice. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure. man damaa joomi bu ma dégloo discours am bii ndax discours bi dafa am lu ma ci jàng. déjà kii wax discours bi sax boo ko xoolee dangay ngay foog da xam ne kii waxeewul ak xelam dañ koy dañ koy dicté ne ko waxal dañ koy dicté ne ko waxal mu ngi man ne sax koo xamante ne danga ngaa lipp lèvre wala sax nga sofe ndax li ngay wax sax duñu ko comprendre xale yi duñu comprendre démb koo gis bu waxee rek dangay gis mu du dumóoyu du seetaan télé bi ndax discours la. xaw ma daal lépp leeful bu kenn xamul lan la mu doon loo xamante ne xaaruñu ko woon ci président Macky Sall ñun faluñu ki nga xamante ne mooy Félix Antoine Diome faluñu la Sénégal yi dañu jël seen xaalis jox ko Macky sàll ngir mu jiite ñëpp doon xaar naan yi dina génn Macky dina génn Macky ne dugg man nag damay wax président Macky sàll bu fekkoon ni moment bi dëkk bi di tàkk yaa ngi sa kër président Macky Sall damay laaj bu fekkoon ni moment bi nga xamante ni policiers seen loxo mi ngi dagg fan nga nekk. président Macky Sall damay laaj xale yi bi ñu jël Auchan di taal ak ak station yi fan nga nekk président Macky Sall yow mi nga xamante ni yow yaay le jeune président boo xamante ni da ngaa judd après les indépendances wala xam lan mooy souffrance su sénégalais yi ñu doon xaar ci yow président Macky Sall nga daal di ñëw jël réew mi dem ba booy génn da ngay naan damay jël élection yi daal di koy organiser ñu def ko mu doon lu transparent mais defoo ko li luñ doon xaar ci yow da nga échec benn demande la am mooy nga démissionner parce que démission boobu moom mooy sa jàmm ndax Sénégal instant bi dañoo sonn xale yu génn di taal Auchan xale yu génn di lakk station yi defuñu ko parce que dañ ko bëgg a def defatuñu ko parce que dañoo jàpp Sonko mais dañu ko def parce que dañoo sonn les étudiants nekk en somage ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër yi benn nit dafay liggéey kooku doon liggéey ci kër gi nga ne ko léegi fa ngay liggéeyee damay leen di déclarer faillite ñoom ñëpp ñu ñu ñu dellu seen kër coono googu naqar googu la ñëpp boolee moo waral ñu daal di génn dem ma jàpp ni force de l'ordre yi ngay jël di koy utiliser contre population bi su fekkoon ni da ko jël teg ko à la disposition des sénégalais di leen am benn warma bu ñu am ci ñoom président de la république Macky Sall. mais dee yi di am partout bu ñu nee Bignona bu ñu nee Sédhiou bu ñu nee Yëmbal agression bi moom man na lu kenn xamul te loolu lépp entre le préfet la ak le président de la république ndax préfet yow dangay ngay exécuter Macky daf lay wax nga def mu doon loo xamante ni lu ñaaw la ci image ndax kat dama jàpp ni nit ku nekk da ngay am kilifa Sonko kilifa moo tax mu wuy ji président Macky Sall ana ban kilifa moo la woowul. boo xamee diina gi la woolu nañ la wuy woo la ñu la wax nangu woo nangu woo kenn ku la wax ma jàpp ni kon ana lan mooy sa importance ak say conseiller lan moo waral nga ay conseiller conseiller kay dama jàpp ni dañ lay wax nga dégg mais yow mënuloo nekk koo xamante ni dangaa yor sab yet sénégalais yi cotiser seen xaalis jox la ko président Macky Sall ñu ne la jaaral nii nga ne doo jaar ni fi nga bëgg a jaar ngay jaar te lu ci gën a doy waar dans tout mooy bu ñu naan Sénégal dafay copier ci la France waaye waay ngor ci gaalaama français yi Macron lu muy bon bon bon bon bon day déglu Macron lu muy bon bon bon bon bon su amee ku ñu rey day génn Maison Blanche bu amee ku ñu fa rey dañuy def discours à la nation ñëpp génn président bi ak personne génn mais nag c'est dommage au Sénégal dëkkub teranga suñu nguur gi ñi fi nekk daal di koy soppi dëkkub loraange xëy na tey wax ji dina doon loo xamante ni ñu bari xame wuñu ma ko woon waaye fu ñu ñu wax ko ci ndax dëkk bi nar ñoo nangu muy tàkk te war ñoo accepter muy tàkk te nag li koy sama naataangoo yi ay Pape Alé di waxee nan ko àttewul ku àttuwul di nga àtte loolu mooy réalité bi ndax dañoo jugee ci li nga xamante ni mooy état d'urgence nañu maytu nag ci état de chaise bu ñu demee nag bañu ñu naan militaires yi ña ngay jël pouvoir bi armée bi mu ngi jël pouvoir bi là ça pose problème parce que bu ñu demee bay dégg ay mbuur ay détenus daal dinañu évadé wu jaxasoo ak askan bi président Macky Sall lool war na laa tiital nit ñi nekkatuñu ci sécurité li mën a apaiser li nga xamante mooy situation bi loolu la ñuy xaar ci yow gis beneen discours fii ak lundi nga génn ñu discours boo xamante ni dina apaiser tension yi wàññi dee gi bu boobaa ñu dooree xam ni am nañ démocratie nga libéré ñi nga xamante ni ay détenus lañ waaye tamit libéré yi nga xamante ni mooy population bi ci joxaat leen seen démocratie joxaat leen seen indépendance c'était tout simplement votre serviteur Davida fii la ak boobu ma leen joxe dig daje ci beneen Top Actu